Ah, <laughs> très rapidement <laughs> traumatisé na ma léegi rek deux heures et doo ko jot te dañoo war a dem julli ji euh, juma donc ñu jàll ci laaj bi nga xam ni kii mu ngi naan oustaz aller visiter une tombe fait-elle partie des recommandations divines euh, dem ci euh, fu ñu suul néew ci armeel par exemple ndax bokk na ci digle yi jërëjëf alaaji Pape ziyaara bàmmeelu nitu yàlla day mhm. boo yamee ci ñëw ñaanal ko moom mi fa tëdd mhm. mën nga cee bañ am bàkkaar waaye li ñuy bañ mooy dem ci zi dem ci bàmmeelu wali yu nitu yàlla nga dem ci bàmmeelam di ñaan say soxla wala moom mi fa tëdd nga ko koy ñaan jàpp ni moom mi nga fekk ci bàmmeel bi mooy faj say soxla dafa xaram ba ci yi ñuy def ci rawdu yi jël suñu kurus yi di ko raay ci weñ gi. gëm rek ñii di raay weñ mais Pape bokkul ci sharia. loolu dafay dugg ci bokkaale yàlla. mais damay raay ba fóon. loolu loolu Pape dafay dugg ci bokkaale yàlla. suñuy denc sama góor gi Ibrahima Awa Niang mi ci taaw yu baax moom dama koy mar. xam du sëñ Fall barki borom tubaa lu ma ci am jël léegi nag yow joxe say conseil. <laughs> di raay Pape jël sa kurus di ko raay ci ci ci weñu weñu bàmmeelu nitu yàlla. Mhm. loolu bokkaale la. toog fa it di fa ñaan sa soxla di ko ñaan ci moom mi fa tëdd nga koy ñaan moom sa soxla mhm. moom mënta faj sa soxla yàllaay faj sa soxla mhm. soo ñëwee li nu bëgg mooy boo toogee ci bàmmeel bi mhm. d'abord nga ñaanal ko moom mi fa tëdd soo ñaana soo ko ñaanalee moom mi fa tëdd ba pare nga ni yàlla kii tëdd fii day nitu yàlla la li mu liggéey ci réew mi ci lu baax ak li mu fi jàng ci ay alquran ak ay azkar maa ngi ñaan ci yiw woowu mu fi def yàlla nga ma taas ci barke boobu. Mhm. nangul ma sama ñaan. waaw taas ci barke. mais nag doo ñaan doo ñaan ci ki fa tëdd ni ko par exemple. Mhm. bàmmeelu oustaz Modou Fall bii nga toog ne yàlla. ay oustaz Modou Fall mhm. fajal samay aajo oustaz Modou Fall lii yow laa ci yaakaar mhm. oustaz Modou Fall sama soxla bi laa loolu boo ko defee yaa ngi bokkaale yàlla parce que ki fa tëdd mënta faj say soxla te dégg naa bokkaale mooy bàkkaar bi gën a dangereux moom la yàlla gën a bañ nee na lépp laay baale ba mu des bokkaale mhm. adversaire moom ku ma ko wutal ma bala te saa yooyu bokkaale yaa ngi wutal yàlla adversaire kon boo ñëwee ci bàmmeelu nitu yàlla di ko ziyaar ñaanal ko d'abord moom mi fa tëdd nga ñaan say soxla ci barkeem ak jëfum yu baax yi yàlla dëgg ci loolu nangul la mhm. muy intervention mhm. mais nag ñëw ci bàmmeel jël sa kurus di ko raay ci weñ gi jël sa jëmm ji di ko raay ci weñ wi ñii dafa tëdd ñii dafa xalangu loolu moom alaaji pap bokkul ci sharia ku koy def feneen nga ko jëlee mais lislaam moom santaane wu mu donc defe naa laaj boobu euh, leer na euh, deux heures nag jot na mais mu ngi taw xam naa ñu bëri euh, dinañu fomm seen demu jumaa est-ce que loolu baax na waaw bu ñu amee ngant alaaji pap taw bi de ngant la taw bi ngant la alaaji pap bu fekkente ni bii mi ngi taw ba mënoo julli ji tey xam naa fii rek lañ koy lal <laughs> waaye xamuñu fii lu fi jaar sobeyee ki yooyu xam doo xam non mais nag pap ah. fii mën nañ fay julli ah, man wóoru mbedd mi boo lalee mën ngaa julli même foo xamul lu ñu fa def yàlla nee na Seydina Muhammad defal naa la mbedd mi lépp laab ak foo mënti jullee foo suuf si lépp laab ah ok defal naa <laughs> xaw ma ci woon dara. <laughs> def yàlla nee na yonent bi. Mhm. may naa la loo xam ne mayuma ko kenn. Mhm. mooy laabalal naa la sa suuf si. Mhm. foo ci mën a jullee demal nga taxaw julli. sijaada bi ngay jullee amul sobe. barab bi ngay jullee xam nga ne amul sobe. yére bi ngay sol xam nga ni amul sobe. jullil. alaaji Paap soo amee ngànt. soo amul ngant julli jil ca mbooloo ma soo amee ngant julleel sa kër parce que jullee sa kër baax na mais jullee ca mbooloo ma da ko ëpp ay point wax na ni saa yu jullit bi demee jullee ci mbooloo mi ëppalee na ki jullee jiwul ca mbooloo ma vingt sept point salaatul jamaa afdalu min salaatil fazi bi sabain wa ishrina daraja moo tax mag ñi di njëkkante di julli ji ca jàkka ja bu ñëwee ëppalee ay point ci jul ki jullee ci kër gi vingt sept point mu ngi loolu defe naa leer na li ci des nag eh, ci ay laaj dañu koy eh, denc